version yëpp xamuñu ci dara parce que lu weesu Boubacar Sall muy médecin ak man ak Pape Souran ñoo maîtriser woon ñoo maîtriser woon li ci ne dafa forole AVC ñu jël ko yóbbu ko hôpital Thiaroye Abibulaay tëdd na un an six mois mindeef xamul ne Abibulaay feebar na parce que ñi ngi nekkoon ci ci loxo yu baax ci ay grand frère ñu ko doon faj ba mu bu ñu sant alhamdulilah bi ñu demee ba nga xamante ne affaire yi ëpp na doole bon docteur bi ne ma euh, Pambaake li gën mooy Abibulaay mu voyager c'est mieux parce que là là là AVC bi dafa commencer jàpp tanki parce que ganglions yi vaisseau sanguin yi mo formé wu donc mënul dial donc luñu ñu def rek moy defaral ko chirurgie euh, euh, jël dread bi génnee kayu yi mais suñu xamul lu ko waral deug day ñëwaat donc bu ma hôpital fan gis Abiboulaye mu teud sama xol jeex ma joy ma jooy mënu ma yow Pape Mbacké yaa ne man day baax ma ne ko day baax jooyu ma parce que li may jooy mooy maa ngi tiim sama rak mu feebar aw ma solution sama xel dem ci Pape Ndong mu nekk jour gàmmu du ma ko fàttelu ko mukk mukk mukk mukk woo ko mënu ma waamee mon frère sama xarit ma ne ko ah mënu ma lan la ma ne ko ah dara jàmm la ma ne ko déet du jàmm mënu ma déet ma ne ko ah sama rakk ngi nii feebar te sonn naa trop jaaxle naa xaw ma ku may woo yow yaay sama frère yow yaay suñu ministre yaay suñu maire mënu ma maa ngi fay ñëw jouru gàmmu la ci goudi mu dem fa and ak Abdou Diouf and ak Abdou Diouf ak Sékou ñu fa demee ñu xol situation bi ñu xamni ki il est fatigué donc il faut que ñu trouver ko solution si le trouver jël ay moyens ak ay relation, utiliser ko yóbbu ko mu voyager mu dem Tunisie pour faju ji Abiboulaye bi muy dundou bi muy dundou mom mo ne ci dëgg ma maa ne ci fen il a beaucoup remercié monsieur pamdong mm-hmm. il a beaucoup pamdong monsieur le ministre il est là c'est mon grand frère. Je n'attends pas quelque chose de lui, mais c'est un gars extraordinaire. Il m'a aidé. Parce que moi, je suis travaillé, je suis travaillé, mais c'est un gars extraordinaire parce que dimbali na sama rak bi ma ko soxlaa Abiboulaye moo ma ko moo ma ko chaque jour da doon def statut jërëjëf Pam donc ma ne ko arrêté soo defee lii les gens moom déjà dina vexé wu arrêté affaire bi sonalee sonalee góorondooy seet si ma ne ma ah Bamba Saraka affaire bi daanelaat na ko de ma ne ko Gora les gens ils demandent de l'argent Abiboulaye il n'a pas besoin d'argent soo ko milliards milliard soxlawu il souffre il a besoin de l'assistance Qui tejna da fa dafa waroon Tunis affaire yi tejna euh frontière yi tejna na delu ñu ne ma ah monsieur le ministre yónnee na fi xaalis bu bare bëri cinq francs ñun ñëpp ñu kontaan té lolu loolu du ma parce que je le vois tous les jours que je fais ñu gis ni monsieur le ministre Matar Ba def na li def na li def na li donc je ne grand mu ne je vais trouver une solution parce que Abiboulaye def na def euh, écho Doppler boo xamante le le le le médecin le professeur ne l'a pas mus jusqu'à présent Abiboulaye bi dem plus de deux mois mu def écho Doppler il ne pouvait pas voir le médecin parce que fan gis nga ak corona et tout ça donc j'allais encore voir un Sène Soko, maa demoon soq à Mbay ak Mortala ñu ànd fa ma homme grand mon ami, ma ne Sarak il souffre sincèrement il souffre sa xarit nak monsieur le ministre il a beaucoup fait jox na ko mais je sens que ni et je sais que ni xamul les réellement les il, il n'a pas les bonnes informations ça j'en suis conscient parce que man xamna monsieur le ministre lumuy daj xam ko il n'a pas les bonnes informations il souffre ma ne ko soo ñu mënee dimbali ma wan ko écho Doppler bi ko ñoo poussé le médecin ce qu'il a dit su fekké amputé wuñu ko dal su le cœur bi c'est fini mu ni moom jëm na ci te gis naa ni jéem na ci def ay jéego pour gis la pour expliquer la ko mooy li nga wax sànq euh, nit su waree dem rek ah day dem ñëw nañ si yow bi ñëwee si yow ñu wax ko mu ni dina ñëw si yow bon insisté wuñu si Eumeu Sène parce que par la suite bi Abiboulaye di njëkk def attaque bi euh, dafa tombeek Kéba Kanté nekk fii jël ko yóbbu ko clinique. bu ko yóbboo clinique gars ne ah nañu woo Eumeu Sène pour woo ma ne ko non am na koo xam ne nee na mën na ko jël en charge pourquoi ñuy sonal monsieur le ministre comme dañuy dimbali kese. donc par la suite Kéba bi mu jeudi vendredi ñu jël dossier yóbbu ko ci clinique Clémence le professeur nañu a ah, dit il faut que je regroupe tous les tous les professeurs parce que c'est un cas très très très grave donc Kéba ne kii tamit daf may parce que qui may gis il souffre attends ñu xool docteur bi ko doon traité ñu avons insisté pour jot ko c'était le vendredi vendredi ci goudi Kéba bu mu demee ñu tooñoonte ak Abibulaay ndekk tàggu nañu le samedi fajar le mu suna woo ne ma ñàkk nañ donc, c'était juste pour vous donner les bonnes informations. Et je sais que, comme si ce tutelle il respectait tout le monde. mais qu'un sert ni mo parce que lim est ci nit wallahi encore une fois di remercier content trop parce que euh,